Youssou Touré maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, yaay coordonnateur euh, national bu réseau des enseignants républicains nekkoon nga fi itam secrétaire d'État à l'alphabétisation et des langues nationales mm. alors euh, Youssou Touré ministre de l'éducation mm. nationale wax na élèves yu nekk ci yeneen classe yu dul yu examen yi ne ñu leen di jàllale ay moyenne quatre virgule cinq ba neuf ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci enseignement moyen bi ñenn nag mm. jàngalekat gis ne lii daal dafay indi niveau bu gën a bon ci njàng meek njàngale mi est-ce gis-gis bu ni mel nga am ci mbir mi. non non non bokkuñu gis-gis parce que quand dëgg la ay manquement mën na am ay jafe-jafe mën na am mais wax dëgg yàlla ministre Mamadou Talla lépp lu mu mën mu ngi koy def. si euh, ñu ngi si période pandémie donc loolu rek ay jafe-jafe yu rëy la ay jafe-jafe yu mag comprendre nga Mamadou Talla aussi wax dëgg yàlla lépp lu mooy ministre éducation lépp lu mu mën du pour tagg ko bu defee lu mu war a def mais wax dëgg yàlla boobaa bi léegi mu ngi ci taxaw taxawaay bu baax en tant que ministre de de l'éducation nationale. alors hmm. ñu jëm ci wàllu kon seen réseau bi di enseignants républicains yi jamono yële bi nga fi euh, génnee am loo wax dañu dal ci sa kaw mu di gouvernement bi nga xam ne jàpp nga ne bu ñu ko ubbiloon opposition bi dina baax yow euh, mun nga expliquer waat sa idée boobu lan ngay xaar ci ginnaaw gouvernement bu ni mel lan la mun a saafara également comme problème pour sénégalais yi. non non non gouvernement euh, xam nga xam nga gouvernement maa ngi la ko doon wax sànq formation gouvernement loolu ay prérogative bu président de la république la mm. comprendre waaw pré loolu prérogative président la man mënu ma si euh, mënu ma si wax lu ma xam lu ma xam daal ba xam ko mooy que euh, dañoo war a daal defaraat suñu parti parce que xaste ak saaga xaste saaga des incendies rek lu salte rek ak lu ñaaw man de lu may ñaan président lu may ñaan président mooy que wax dëgg yàlla que mu sévir parce que aussi ñun ay doomu aadama on a un certain niveau intellectuel am na luñ xam am na luñ mën mais ñoo xam ne ñi fu ñu ubbee seen gémmiñ rek pour saaga la ay saaga ay yu salte yu salte sax yu salte yoo xam ne da ngay toog ba yàgg ma ne ñii est dit lañu kan ngay xalaat sooy wax loolu. pardon ma ni kan ngay xalaat sooy wax loolu sa xel ci kan la dem nii. non waa euh, mënuma toog di cité parce que duñ samay nawle. Hmm. duñ samay nawle. koo xam ne ki boo taxawee fuñ la gisee yaa ngi ci ay fuñ la gisee yaa ngi saaga fuñ la gisee yaa ngi saaga. fu ñu leen gisee rek yaa ngi saaga ak xaste waaw Moustapha Cissé Lo doon saaga dàq nañu ko ci parti bi jàpp nga ne. kan kan noonu Moustapha Cissé Lo mi doon saaga. Euh, non non non dàquñu ko ay jafe-jafe la rek. dàquñu ko ci parti bi yàlla dana si gis ndox mu tedd. mais daq nañ ko ci parti bi dàq nañ ah. ko ci APR. non non non waaw dàq bi waaw waaw mën na doon na dàq mais presque du dàq ñun danañ gisewaat suñu biir danañ waxtaan te jàmm rek lañ bëgg parce que àdduna bi jàmm la bëgg euh, ku xam président Macky Sall xam na président Macky Sall du du kuy wax lu ñagas wala lu wala wala lu salte donc bu loolu amee euh, vraiment ñu euh, ñaan rek président mooy mu gën a jàpp mooy mu gën a euh, mu gën see jàpp comprendre mm. ñu xam ne yàlla moo ñu jox mission bi donc comme yàlla jox nañu mission bi nañ ko rafetal. kon yow su ma la déggee kon yow su ma la déggee dàq bi ñu dàq Cissé Lo ànduloo ci te yaa ngi ñaan njëkk xëy na. pour moom de waxuma ànduma si de. Ah. waxuma ànduma si de nay leer. waaw non dama lay laaj waaw boo defee loo war a def. Mhm. dañ lay sanctionné man nii yàgg nañ maa sanctionné. d' léegi da ànd nga ci sanction bi wala ànduloo si. non munu ma ne ànd naa si sanction wala ànduma si loolu moom wax dëgg yàlla. Mm. du c' est pas du sama domaine de compétence. ndax lii baax na wala lii baaxul. Mm. parce que man aussi. Euh, lu ma xalaat rek laay wax mais buñ demee nag ba muy euh, daj ci keneen wala keneen di ci jot man loolu duma ko def je suis assez responsable léegi yow lan nga xalaat ci kaawu Yakham Mbaye ak euh, Farba Ngom am na ñu jàpp ne ñoom tamit dañ leen war a dàq Farba Ngom nga baal ma ah. Farba Ngom cité nañ ko ñu ne maa ko cité maa maa ko wax hmm. loolu dama ci sa antenne maa ngi jéggalu waaw maa ngi jéggalu parce xam naa nu mu demee c'était une erreur au, au niveau de la communication. Mm. comprendre mm. donc wax dëgg yàlla Farba Ngom Farba Ngom ku jàppale président ku jàppale président fu président dem mu nga fa coono bu mu am moom président wax dëgg yàlla dañ loolu dañ koy wax rek te yàlla sax. kon yow jàppoo ne ñoom dañ leen wax a sanctionné comme si c'est loolu niñ ko sanctionné. a non waaw waaw waaw xam nga sanctionné am na. Mm. sanctionné am na wante baale aussi am na. Mm. parce que ay doomu ku dul juum amut. man nii de bu ma xëyee rek euh, junney jéewee comprendre nga. Hmm. ñu si des yi nag nañ xaar bool dee Abdou Jàmbaar naan nañ ko xaar parce que koo xam ne bu fekkee da nga toog sa àdduna yëpp sa làmmiñ yëpp mooy wax ñaaw saaga def lu nekk ñu dugal ko suñ biir ñooñu lañ war a sanctionné ñoo xam ne ñu xasee rek lañ a wër di jaxase nit ñi. ay nit ñu salte kan mooy jaxase foofu kan mooy jaxase APR non non non dama non ma defe nga dama ñi ñooñu danaa danaa di wax ak ñoom di leen tontu du Cissé Lo du du du du du Ngom non ma hmm. kon xanaa yaa xam mbay la gannaaw du du Farba Ngom non déet nekkuma fi nag pour di leen pité madame hmm. franchement je suis au regret waaw mais nee naa la daal euh, muy Farba Ngomam muy Cissé Lo njuumte moo am rek. parce que nit nag nit rek la te dañuy balu àq. Hmm. lépp lu ñagas lépp lu ñaaw dañ koo war a teg de côté lépp lu ñaaw lépp luy saaga lépp luy xaste ku mënu dara rek parce que boo toogee amoon benn niveau intellectuel amoon benn niveau man comprendre hmm. yow lu la lu lu la kii rek mooy sa dex fu nekk rek yaa ngi fay dugg di mbenn daleeg di xaste ka saaga comprendre loolu rek lañ fi nekkee ñun nag dañoo nekk ay responsable ñun ay responsable lañ te dañoo suur démb te tey ñëw. d'accord donc nañ lu maam Abdoul Aziz Sy doon wax nañ defaraat jikko yi. Hmm. waaw léegi moo ñëwaat ci laaj bi sànq tontu woo ci da nga fi proposé woon ne gouvernement boo xam ne dañ koy ubbil opposition bi. war na mun a na mun a nekk. ma maa ne mosuma ko wax. ah oui. ah barke alxuraanu karim mosuma ko wax man laaj luñ sama yoon ci gouvernement d'ouverture wala gouvernement daa. ça ce sont les prérogatives du président. comme comme ko wax ñu jàll ci leneen d' accord. léegi rapport IGE yi génn keroog wone nañ ci tamit ay njuuj njaaj ak luubal yu bari yoo xam ne yéemati na sénégalais yi leneen li mooy yéex a génn rapport yi dolleeku ci tam ñàkk daan di sanction yi nga xam ne ba léegi sénégalais yi gisaguñ ko ci benn rapport boo xamante ni. Euh, corps de contrôle yi génnee nañu ko yow loolu yëpp. Euh, ban jàngat nga ci def ko foog rek parce que je crois que ñun lu ñuy def. président bu ko def dans bu euh, réew mi mu ngi fonctionné président Macky Sall président Macky Sall lépp lu mu ngi si bis bu xëyee rek mu ngi ci mu ngi si liggéey comprendre lu mm. pour euh, neexal ko ni quoi que ce soit mais ku xam président Macky xam ne nit ku teey la lu bëri du jóg rek ne xaaral ma sanctionné xaaral ma lii xaaral ma léegi donc lu si am solo daal ñu xam ne duñ ay bàyyi ma président Macky Sall defal nañu lu nekk lu nekk defal nañu wax dëgg yàlla waxtaan wax dëgg ca la. Mm. lu nekk président Macky Sall defal nañu ñun ñii ñëpp nag. donc bu loolu amee nañ fexe aussi askan bi sénégalais bi sénégalais yi ñu jéem a seet nañ la ñuy jàppalee sénégalais yi comprendre loolu moo am solo. mais man de damay toog ba si yàgg. Mm. Euh, yow madame boo ma mayoon tuuti xaalis sax xanaa ma bàyyi rek noppi. Mm. comprendre loolu loolu mooy wax bi parce que ñoo xam ne ni seen àdduna yëpp saaga la. seen àdduna yëpp invective la. Mm-hmm. lu salte rek la ñu génn. waaw danañ danañ dee double fois parce que mm-hmm. danañ dee ci kaw ci kaw suuf euh, deewaat ci kaw. d'accord léegi Youssou Touré yow tey bu ñu la déggee dafa mel ni kon sa digganteek président moom léegi lépp macha allah euh, pourtant ay jamono. Ah, ah, déggoon nañ la fii ngay wax ne joxuñu la sa cër. Ah. joxuñu la sa gëdd. faale wuñ la dañ lay tuutal di la toroxal. Euh, mën nañ jàpp tey ne loolu yëpp jeex na. non je au regret. Mm. xam nga nit. da ngay wax yow mii sax xam nga yaa ngi may interroge. Mhm. mais danaa am loo xam ne li du ma bëgg sax nga wax ko. parce que je parle de façon spontanée. Mhm. comprendre donc ci suma biir wax rek mën naa jàpp. Mhm. wala ma wax lu ma war a wax parce que ay nit rek la ñu. mais nekkuñu fii. vraiment encore une fois pour di wut ay jafe-jafe rek ay salte Farba Ngom. Euh, cité cité naa ko c'est une erreur. waaw léegi ma dugg ci détail waaw sa digganteeg président Macky Sall laa wax mun nañ jàpp ne léegi vraiment benn réeroo amatu si. mosuma amat président réeroo barke alquranul karim laa wax waat naa ko ci alquran. Hmm. bu dee nag beneen côté xëy na. mais mais jàppoon nga ne yow joxuñu la sa gëdd faale wuñ la. loolu de kon keneen na ko wax man kay wax man ñu def ma ministre nga naan la gëdd ku la ku la joxuñu la gëdd ñu ma dàqal jàng rek ñoo fi nekk di ma euh, madame. ñu ma dàq jàng rek ñu jël ma si si samay digg nawle comprendre nga am lu ñu ma nomee sant yàlla moo a war mais après bi ñu la wàccee si poste boobu neexuloo woon nga ne dañu. non non non non non loolu beneen kaa la woon. d'accord kooku beneen kaa la woon bëgguma bëgguma duggaat si yooyu mais loolu beneen kaa la woon ensuite madame. Hmm. kenn motut da nga wax ba juum. Hmm. comprendre donc man de muy ñoom Farba Ngom muy ñoom Moustapha Cissé Lo. ñoom ñëpp dama leen di bal wax nañ fexe daal ba defaraat suñu réew. mais Yakham Mbaye nag lu tax bëgg a tudd Yakham Mbaye dafa am lu nekk seen diggante. Euh, billaay yaa xot yow. <laughs> depuis sànq naa ne bu ma la waxee Yakham Mbaye rek da ngay waaf dem si leneen lan la. xanaa Yakham Mbaye li ngay wax ni yëpp kon moom moo nekk di ko def si parti bi su ma la déggee. non no non non bul dugg si loolu non non non si c'est maag moom jotewuñu dara. Ah. mais na bay toolam ma bay sama foofu daal laa mën a yam lan la dafay daf lay attaqué su mu la su mu la comprendre ah gisaguma ko de pour ma attaqué hmm. léegi tax nga ne na béy toolam yow tamit nga béy sa tool béy sama tool mooy lan dafa am lu xew si diggante bi seen si si yéen ñaar maagtan yaag yaa xam mbay mais bokkuñu lu ñuy def d'accord ba moom mu ngi fële mu ngi mu ngi feneen mu ngi si ay journaux ak nangam nangam hmm. man maa ngi fii donc man Euh, bokkuñu dara. yow sax si si lan nga nekk si lan nga nekk jamono yi. si ja xanaa si jàmm ak salaam. Hmm. si jàmm ak salaam laa nekk de aw ma benn problème aw ma benn difficulté. aw ma benn problème président Macky Sall. Hmm. fu mu ma tegoon foofu la ma teg ba tey jii. d' accord xaw ma nag ëllëg. d' xaw ma nag ëllëg peut être sabre bi daal sama xaw <laughs> mais daal ñun jàmm la ñuy wut jàmm lañ soxla pour réew mi yëpp. ñu ànd juboo defaraat suñu réew. d'accord euh, ñu ñëw ci déclaration de patrimoine yow noo comprendre ay ministres yoo xam ne dafa leen war ñu toog ba tey defuñu ko président di leen soññi ba àppal leen délai buñ ko war a def ndax loolu rafet na tey fii Sénégal toll ci seen der. waaw mais bu fekkee ne président dafa am ay contraintes dafa am ay contraintes jiite réew yomb. président hmm. bis bu xëyee bis bu xëyee mu ngi ci documents yi mu ngi ci dossiers yi. te te ay ay ay ay dossiers yu mag la du du du du ay du yu ndaw donc dañoo war a xam ne ñun ñi ay doomu aadama dong lañu du leneen ay doomu aadama dong dong dong lañu donc bu loolu amee nañ bàyyee xas tey yi ak saaga yi. waa léegi est-ce est-ce na ministre boo xam ne dañ ko dénk alalu askan bi mu war a dem moom wax li mu am bu ko defee ñu mën a xool ndax luubal am na wala amul mu toog ba tey defu ko ba président di ko si yi loolu laa ne est-ce que ci sa xalaat jaaduwul kan moo ko soññ président soññi na ministre yi ngir ñu def seen déclaration de patrimoine fii ak fin août quarante cinq jours. la man nag man nag euh, déclaration de patrimoine ça ne m'engage pas. waaw parce que quand même euh, je suis waaw ah, je suis ministre conseiller aw ma dara lu may détour. mais mais mais dama ne yow loo xalaat ci ministre yi nga xam ne war nañ ko def. te defuñu ko dañuy def. war nañ ko def te defuñu ko. ah ministre yi. waaw ah waaw loolu nag euh, loolu nag sama xarit. loolu nag moom wax dëgg yàlla. man man man aussi je suis dans une obligation de réserve. Hmm. dafa am loo xam ne li mënu ma ko wax. te da ma comprendre parce que. je vois que intellectuel bu mag nga. <laughs> d'accord. waaw non non non

du loolu la ñuy xaar ci Sénégal kéwél yi c'est kii à protéger xaw ma nuñ koy waxee ci sax ah espèce voilà c'est des espèces à protéger kenn waru ko laal kenn waru ko laal waruñ ko rey waruñ ko def dara comprendre nga hmm. bu ñuy jël ñun mooy chantier wu jàmm nekk nit ñi luñ am ñu bokk ko di wax lu baax di def lu baax boo gisee koo mën a dimbale nga dimbale ko te yàlla tax moo gën xastante beeg saaga bi weesu nañ yooyu nañ bàyyi saaga ak xaste ay nit ñoo xam ne ñu tekki wuñu dara dara tekki wuñ ko comprend mm. donc nañ fexe daal ba xam ne euh, suñu euh, muy président mooy parti bi yëpp. nañ xam ne président ñun ñoo ko war a gën a jàppale. waa léegi Youssou Touré président Macky Sall bu fekkonte ni góorgóorlu na ci ku def naka su dul noonu mu mu mu dal euh, sa kaw yet bi dal la est-ce que yaakaaroon ne bu doon doxalee noonu affaire yu mel nii dina wàññeeku bu baax a baax. si gouvernement man man yàgg a maa dóori yet bi <laughs> ah, waaw bi maa ngi nii. Eh. maa dóori di yàqu di yàqu waxoon am na lu ma wax ñu dàq ma. te bu ma dàqee doo fi dama nangu parce que maa ko def. Hmm. maa ko da ngay def preuve de retenue et de dépassement. léegi yii yii di am nii yëpp président yaakaaroon ni waroon na sévir waroon na dal seen kaw. mais dal si kaw mooy lan. xanaa da koy da koy def si biti. lu muy def si biir ñun xamuñu ko. Hmm. mais mu ngi def lu mu war a def. du toog nag ba président responsable la. Hmm. président la République. du toog di wax publiquement yenn yooyu am na yenn yoo xam yi fu mu koy waxee ak fu mu koy defee ñun duñ ko yëg. d'accord loolu aussi mooy wax ji euh, madame. dëgg la loolu mooy wax nangul naa la ko. jërëjëf Youssou ah, Touré amoon naa mbégte loolu dalal la ci matinalu réew mi tey ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup jërëjëf merci.